rek moy delsi wat la tax ñu ñëw nak ci magal gi ak liko ko sabab boo daanalee ñu joxat serigne Faye moy lan ngay doli ci cheikh seex wax ci serigne bi jërëjëf serigne Mokhtar serigne tàkk mom defe naa wax na lépp ci développement bu am solo bi nga xam def nako li dama ci déggee le serigne bi waxan rek kafaani xafisun maaniun jumlatal ayda wali khad ahbaban bihim usuri nuska yàlla wommatal na ma ay soppe yoo xam ne sama rem jaamu yàlla ci ñoom laa koy wone xam fu ñu toog rek ñu ngay waxtaane sëriñ bi di wax ay jaar-jaaram ay jalooreem te sëñ Babacar Jaxate dafa waxaan ne moom amul wenn waxtaan bu muy waxtaane kenn lu dul waxtaane sëriñ Tuubaa maa li xaddisum la daa xaw min u xaddisuhum si waaka anta xaddis yi bay na aqraan yi bu ko defee kon sëñ tàkku dafa ñëw ci beneen taarif boo xam ne taarif na ko sëriñ bi nga xam ne moom dafa bari ay taarifaat hmm. tey تعرف تزاهر دينان وأما أمه فجارية الله مريم بسوب بنت محمد بن محمد حماد بن علي البسوبي وهؤلاء شرفهم سقيهم ونسبهم مثبت إلى الإمام حسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فالشيخ شريف أما وأبا شيخ محمد لفهني سيرين بي بن توبي أك جالاليم داي ديم سيدتنا فاطمة رضي الله عنها سيرين مختار سيرين بي نيك كو بي buñ demee ci minanil baaxil xadim muy téere boo xam ne doomi Serigne tubaa moo ko bind muy Cheikh Mouhamadinil Bachir sëñ Bachir moomu bi sëñ Touba di dem ci géej gi ganegut àdduna waaye ci at mi la gane àdduna nag moom ci boppam bindal na boppam ci téere bi ne bi sëñ Touba demee ci géej gi ba am juróom benn weer laa gane àdduna téere boobu damay wax ne lépp loo fa fekk ci Serigne Touba mook alquran ñu yem ci ak wér ndax alxuraan gis nga ni mu wéree jamono yi ngi wax yi ngi wàcc yonent bi dafa xam ne bu leen bind ci man dara lu dut alxuraan ndax su waxee ay waxi boppam ñu bind ko naa fekk yi mën nañ koo jaawatle ak alxuraan ne waxi yonent bi am na ci biir alxuraan kon alxuraan dafa nekk loo xam ne lu wér la waaye téere boobu lépp loo fa fekk ñu wax ko ci sëriñ bi moo ko ñu yem ci ak wér damay wane ne lu wér la ndax doomi seexul yi moo ko bind sëriñ Basiru te jataay yu ci bëree bëree bëri danaan damaa toog sëriñ bi toog di nett li may bind wala sal xabaru kalan yaan mu ngi Cheikh Mouhamadul Bachir nene ne sëriñ bi moy ko xamne mun su mayyiza yaminan min shimalin lam taqa min khafatun wala zulmun li ahadin hatta walidihi wa walidatihi bu lay laaj ko musta def erreur ci ak dundam moy serigne Touba serigne Bachiru nene ñaar ñi ko soxna jaariyatullahi Mariama Bousso radiyallahu anha ak serigne Mor Anta Sali nene na mosu cee tooñ kenn te serigne Mor Anta Sali dafa nekul ben way rek ñaar ñi seq sëriñ bi sëñ Mor Anta Sali dafa nekkul benn waay sëñ Tuubaa ne ne moo doonoon xut boobu jamonoom jamono ji mu nekkan sëriñ bi nee na sëñ Mor Anta Sali moo nekkaan xut boobu jamonoom ca waye nga xam ne way na ko jëmale ko ci waay juróom wa sëñ Mor Anta Sali ayaa man baal ahkaami yaa xawsa dalil ayaa xarmu yaa naamus yaa xut badal jalil lanaa xusma diixan mis la dib sin mu dak dakin bi shukrin waraaxin xayra xawlil abatili kon ñaar ñooñ ñoo séq Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul muy tamit koo xam ne sëñ bay Jaxate ne ne dafa bokk ci ñu daan fréquenté Serigne Touba moom ku ne xam ma Baye Xaadima Jaxate Kala mooy waajuram mm-hmm. muy ku dëkk ci réew mi ku ñëpp nangul ku ñëpp naw ku ñëpp fonk sëñ Baye Jaxate ne ne bi may gis Serigne Touba ba bi ma ko noppee gis dana ci ñaar rek laa koy gis ñu ko ban ak ban mu ne jaamu yàlla liggéeyal yonent bi wa yaqdimu lil maahi wa yaabudu rabbahu wa ma zaala fi haazayni mun su naraaxu dana ci ñaar ñii rek laay gis sëriñ Touba muy jaamu yàlla liggéeyal ki nga xamante ne bii moo di yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye bu ñu delluwaatee tamit sëriñ bi bi mu nekkee tuut tànk ba jaar fi nga xamante ne bii doomi soxna yi dinañ fa jaar ci këru baayam la dalee alquran Sëriñ Mor Anta Sali mën na ne sëriñ bi ay mbokkam rek ko jàngal wax nañ ne sax bàyyi xaadima jaxata kala jàngal na ko waaye nee ne li ñu tudde daqaaxul arab Serigne Touba bu doon bind di way wala yooyu lay indi bu indee jox bàyyi xaadima jaxata kala ne ko génneel ma li nga jàpp ne ay njuumte la ci biir xasida gi dafa mujj bu indee na naan ko bàyyil ma mokkal waaye fii lu ñu corrigé amu fi muy koo xam ne tamit bi mu nekkee ci daara yi way juram di jàng sëriñ Basiru nee na sëriñ bi mu ngi ci daara ji di jàng boo demee ci Cheikh Mouhamad Lamine ca Irwaaw Nadim ne ne bi sëñ bi nekkee ci daara ji di jàng ne ne wayaat na ay téere yoo xam ne sëñ Mor Ansale mi ngi koy jàngalewaat ci daara ji ba jàngal na ci sëñ tàkku ak sëñ aafiya ci biir daara ji sëriñ bi jàng wayaat na téere yoo xam ne ñu ngi koy jàngale ci biir daara ji sëñ Mor ansali moo nekkoon maître bi jàngale waaye nit ñi dañ ko daan bàyyi foofa di taamu sëriñ bi jàngal leen ndax jamono jooju sëriñ Basiru nee na école boobu moo nekkoon école bi gën a mag gën a siiw ëpp ay élèves wa kaanat madrasatuhum tilka min aksaril madarisi talaamisatan wa akthariha sëñ Mor Anta Sali nee nañ bu doon jàngale làmmañ bi dafa bar te bëgg woon ku koy laaj di ko laajaat sëñ Basiru ko wax de wa kaana cheikhul imam chariu tadris wa yukrahu lahu muawadatu takraat baada maratil ula kon nit ñi dañ daan bàyyi suñu Mor Anta fa mu nekk ñëw ci sëriñ bi ngir mu jàngal leen seen bind ndax nee neen sëriñ bi bu la jàngalee di nga xam lim la jàngal te di nga ko mokkal maam Cerno rakkam ju baax ja sëñ Tubaa daana ko téere ba téere bi xaaj mu ne ko Cerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko li des ci téere bi mag baaxee ko rakkam te maam Cerno ba muy nekk tuut tànk la mel lii mu mel xat xaasa martabal a martabatal axyaari fii si xarin xattaa badaa fawqa abdaalin wa axyaarin maam Cheikh Ibrahima Fall bi sëñ Tuubaa demee ci géej gi ba ñëw biñ ko laajee ana lu lu yokk ci sëriñ bi wala lu wàññi ko sëriñ bi dane bi xanaa bijjaaw bi rek waaye na melan demel ci digganteem ak boromam kenn lañ ko doon gam-gamlee ci daara jim nekkan moom sëriñ bi ci gaaw a mokkal ak bëgg xam-xam ku ñuy wax sëriñ Balla Maam Touré mi ngi bokkan ci axlu lappe waaye sëñ Tuubaa ne ne ak saru te aksaru tawaddudan fil wara dama ko gën a na sàmm sëñ Maxtaar ba ci kan mooy sëriñ Tuubaa mooy que nga xam ne waajuram mu baax wa Mor Anta Sali nekkee ci waajtaay ngir wuyu ji boromam dafa wóolu sëriñ bi mu ñëw dafa teel xam ne kii amalu suñ borom def ci moom ci jamonoy tuut tànk li ñuy wax boot sëriñ Basiru ne ne ku ko mos a def sëriñ bi jaar ci barab bu ñuy fooyee sëriñ bi dina def noo xam ne li nga xam ne bëggul nga jaar ak moom fii ndax am po da cee mësta wax dara ndax ne ne sax sama xel mii mësta jàng di xalaat lu jëm loo xam ne jëmut ci yàlla am xel xel bu ko yàlla toggan jëf ñun ñëpp sawara lan jëm sëñ Tuubaa ne ne sama naaru góoru xel mii mësta déng-déng di xalaat leneen lu dul yàlla lam yemil kalkal yi li xëyri ilaahi wali rabbi xawlin taqaa wa samaa yi du tooñ te ku ko tooñ mu jéggal ngir boroomam di may ku ko bañ di wow ku ko foñ di neexal safoo ku ko soof ku dul kuy mooy boromam. kon li ñuy wax pare sëriñ bi dafa teel a pare. sëñ Mor Ansali dafa woolu sëriñ Touba ba ñëw mu ne ko Ahmadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko yëg naa bopp ne damay dem yëg ci sama bopp ne damay dem waaye dama dénk sama bopp bokk na ca kàddu yi mooy mu taxaw njaboot gi ku nekk xam na ne askaru Mbàkke sëñ Touba na ne fonk kilifa ak mokkal alquran defuma ko ci dama ko cay fekk. waaye dañoo nekkal askan woo xam ne dañoo manqué woon barke sëñ Tuubaa ne ko ñoom ñëpp dinañ am barke waaye bokk na ca damaa bëgg nga jàngal ma ab kaamil boo xam ne kenn du la ca rax yow kese yaa ko jàng gis nga sëñ Maxtaar sëñ Tuubaa ni mu doon jàng alxuraan moom rek a ko man nee na waxtu mooy tëgg rasulullaay làmma ñaa ngi tari alxuraan yaddiita xuttu wa lisaani tatlu wa laysa tanhu li jihati xitlu ba mu nekkee ci yéen jolof ba fay jógee dafa laaj ma ngi ñaata kaamil ngeen fa jàng mag ñi wañ wàññi naan jàng nañ nanga mu ne leen sama làmmañu bopp man Ahmadou jàng naa fi junnee kaamil moom Serigne Touba bi ko Serigne Mor Anta Sali jàngal ko kaamil Cheikh Mouhamad Lamine dafa wax ca ba bu Serigne Touba doon nit ñu ne Cheikh Mouhamad Lamine Diop mooy secrétaire am moo bind Irwa Unadim ne ne wa jalasa inda rasihi wa xatama alquran yawmul isnayni wa tuufiya laylata sulasaa yi wa xumila ila deqale ne na sëñ Tuubaa dafa ñëw ba ca côté bopp ba toog ca altana ja la ko jàngal kaamilub alxuraan ca guddeeg talaata ga sëñ Mor Anta Sali faatu ñëbbu deqale waaye sëñ Mor Anta Sali waxal na ko ne ko su ma xëyee faatu naa yenn ji deqale su ma gontoo faatu naa fanaani deqale sëñ Tuubaa ne ko fa ngay fanaani kon koo xam ne nekk nga tu tànk sa waajur dem ba fi bàyyeekoo di la dénk lii nga xamante ne bii mooy boppam kon sëriñ bi ku yéeme yéeme la sëñ Maxtaar tey ba ci sëriñ bi ba ñu doon wax kan mooy sëñ Touba mooy ki nga xam ne dina juróom-ñaar fukki at ak juróom am na ñuy wax ne sëriñ bi mësta tiim waaye loolu day nekk euh, mu xaalaat maanaam xaabaabal sëriñ Basiru nee na sëñ Touba mos naa tiim benn yoon ci ak dundam ca mi nenoon baaxil xadim juróom-ñaar fukki at mu dund moom sëriñ bi benn yoon la mos a tiim ci ak dundam te doomam sëñ Basiru moo ko nettali ci téere bi di mi nenu baax xadim kuy bëgg sëñ Touba moo la ko gën a bëgg ne na naa tiim benn yoon ci ak dundam sëñ Maxtaar ba léegi bu ñu wax kan mooy sëñ Tuubaa mooy ki nga xam ne mësta boole yàlla ak dara waxidullaha walastu usriku bihi xii na xiw xii na ziwaaye usriku usriku ne ne damaa kennal yàlla te mësuma ko bokkaale ak lenn waxtu wa nga xam ne ku dul man yaa ngi bokkaale yàlla sëñ Tuubaa mooy koo xam ne sëñ Basiru nett na ci téere bi nee na ci fonk gi mu fonkoon jaamu yàlla bis loxo bi mas na amuk taab sëñ Tuubaa bu ñu jàpp ne nattooy zaahir yi ko tubaab bi doon teg rek moom la doon tegoo waaye suñ borom da ko doon nattu natt yoo xam ne day nek nat ruhaniya am nat yo xamne jismani lay don ci yaram serigne bi lay dal neena serigne bi amuk tab ci loxo bi serigne bi sunu neena tab gi agna ci ñor ba deutal agna ci ñor ba deutal waxto julli jot neena serigne touba di jàpp ba ëgsi ci loxo bi am tab gi neena na ragge loxo bi dara dalut non lay ragge loxo bi nga xamne mo am tab bi قد ورمت يده warman عظيما يجري منها الدم والخيخ fan kasaxal jilda wa baqeet laxman ahmar sëñ Bachir ne sëñ bi da koo ragg ba ndawal gu xonk gi nekk ci loxob sëriñ bi mi ngi feeñ sëñ Tuubaa di xaata banteeg loxo bi naa ko ayatuhal yaddul maamuur sawaun damayte aw barit moo xam da ngay nàcc moo xam da ngay xamal na jaam laa boo xam ne yàllaa ma digal ma jaamu ko dama koy jaamu. est-ce que kooku mooy Serigne Touba. kon Serigne Makhtar. macha allah xañ na Serigne Tàkko sax mooy waxtaan kan bi dañ ci doon def ay taxlixaat. macha allah ñu delluwaat la kàddu gi. macha allah est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que jërëjëf Seydina Omar moom daal tabaarakallah tabaarakallah yi eh, kawe na. ci sëriñ bi delluwaat nga fa gën a sori. Mhm. Eh, sëñ Tàkko fi mu ñëwoon ci sëriñ bi. Mhm. bi mu doonee ki mu doon fi mu wéeru ci yàlla ak yeneen mhm. waaye da ko delloo ci ne euh, mbir mi gën na kawe loolu mooy woyjur ya mhm. waaw ya mhm. ca moom maam ca maam Mor Anta Sali euh, ca maam Jaara effectivement fa la mbir yi dooree nag maam Jaara Buso radiallahu taala anha jaariyatullahi maam Mor Anta Sali seen liggéey bu sell ci yàlla bokk na ci leen yàlla fayee Serigne Touba. ndeysaan daa am ñoo xam ne ku doon seen waajur payug yàlla la. Mhm. gum la fayee ci liggéeyal ko. am na ñooñ du ku ne mën a doon seen waajur. déedéet booy yéem Serigne Touba mu yéem la lool. Mhm. ah bàyyil xel ñaar ñi ko meññ de. <laughs> lii maa ngi koy wax barki njaay rek fii ci Tëngéej. ci ma ne koo dégg ñu ne waliyu la yaay ja dawal waliyu la. Mhm. du jigéen ju nekk mooy jox weenam waliyu mukk moo tax koo dégg ñu koy naw ci yàlla rek bul yem ci moom de su fekkee yàlla ngay wut weesul kooku daw ba ci yaay ja laalaaleel bàyyi ja waaye yaay da ciy gën a yéemeeti sax far da ciy gën a yéeme ndeysaan mhm. ne nee na sax julli guddi ci waajuram bu jigéen la ko taal bien sûr moom si ngay wax sama xel a ngi dem ci loolu nee na julli julli guddi waaw waajuram moo ko wax sax ban woo ba mu ñëw booba Sëñ Tuubaa demagul daara mhm. waajuram ko ba mu ñëw mu ne ko min da bi saalixiina xiyaamu leen bokk na ci aaday góor yàlla yi taxaw di julli guddi neneen sëriñ bi njëkk muy dem daara daana taxaw ci der di julli ba bët set te soxna si saalixa diiniya kasiratu salaati wa sawmi wa saddaxa mustaslimatun rabbiha xaaimatun bi waajibaati diiniha baynaha wa bayna rabbiha kon jërëjëf si macha allah tabaarakallah moom rek def nañ ci moom xalaatoo gars yi wax ci lu bari maam jaar waaye boo jàngatee soxna jaara fi mu mhm. jaar ni mu fegoo jaamu mhm. yàlla ga comme noonu nga wax tarbiyaam Serigne Touba lu ci participé mhm. ci lu bari ci ndawam ci wàllu yàlla waaye moom ki mu doonoon ki mu doonoon way juró way jur maamu Serigne Touba tamit bu jigéen ki mu doonoon ngay topp noonu waaw ci ngay xam ne soxna Asta Waalo li nga wax léegi ci jàpp lu ñuy fàttaliku mooy benn yoon lañ ko mës a gis mu tiim waaw soxna jaara woy juróom noo ko tàggat boobu foofu la koy jëlee ba mm-hmm. mosta julli te jàppul mm-hmm. soxna jaara lañ wax wallaay ndeysaan si kuul waaw ah, mosta julli a jàppul mm-hmm. mosta wérdu te ñaanul waaw soog a xëy nangam ba xasida ba jeex sëñ sëñ Moxtaar gis nga loolu war ngaa insister foofu lii nga soxna jaara nii mu mel ci photo bi melul noonu fi mu boo gisee ci photo bi da ngay jàpp ne meeru juróom-ñaar fukki at la maanaam nii mu mel gis nga ñaar ñii ni ñu leen présenté réew soxna jaara ni ñu ko présenté ci photo bi moo des ak maam Cheikh Ibrahima Fall ni leen présenté réew mi moo des mhm. soxna jaara melu woon nii mhm. maanaam ku taaru la woon mhm. ku ku suñ borom joxoon jëmm la ndax suñ borom buy teral jigéen def naa dina ko teral ci côté yooyu noonu nii mu mel ci photo bi nii melu woon noonu aussi boo xoolee nangay mel ni maire bi juróom-ñaar fukki at te 33 ans la fanweeri at ak ñett d'accord loolu tamit waaw macha allah yéene yëpp ba am yéeme yëpp ba am Serigne Touba taxuloon at yi ci zaahir yegg fenn fi noonu loolu lu am solo la ba tax na laay del siwaatee ci sa wax wane lu ama am solo la mooy fàttaliku maam Mor sa Sali ni mu doonee woon xutbu jamonoom mhm. moo tax mu mën a am xutbu soxna jaara noonu mhm. waaw ñoom ñaar ñooñu li màggal gi rëy rëy sëriñ bi yéeme yéeme mhm. ah bu ñu fàtte ñaar ñooñu de dëgg la <laughs> laa soxna jaariyatullaahi maam morante sali mm. waaw bu ñu leen xamlee rek danañ ne ah laa xarwa nag mm. ñu mën a am ku mel ne sëriñ Touba mm. ndaa am na koo xam ne nii cëram daf ko jiitu du moom mm-hmm. ca ëzël lañ defe woon sëriñ Touba mu doon ki mu doon ñu war a xaar nag ci jamono ñan ñoo ko mën a meññ mm-hmm. danañ ne yull xool ci jamono xool xool xool ne ah gisaguñ ko nu mën a meññi ñu delluwaat mhm. ci waxin mhm. ba yàlla di leen dajalee nag ku leen mën a meññ du ku ne mënoon doon way juru Sëriñ Tuuba mhm. du ku ne mënoon doon way juru Seydil Hadj Malick du ku ne mënoon doon way juru Cheikh El Hadj Ibrahima Niass du ku ne du ku ne du ku ne waaye ñoo ñu ñuy tudd ñëpp demal nga laajte ji seen yaay kum doonoon fu mu jaar lu mu def kay ci ngay comprendre lu bari nag loolu nag message u tey li ñu naan waxtaan bi dañu bëgg ñu jëriñoo ko message u tey mooy jigéen ñi ñoo xam ne lépp ñoom lay doon soxna jaara bu ñëwoon rek ni ah ñëweesu woon wéy nañu góor góorgóorluwul ngir am yàlla <laughs> kon mën na am sëriñ bi échappé ko dem ci ñeneen waaye bañ koy yóbbu ci néegu borom këram ci zahir niñ koy nettalee mu ubbi kaamil ba yem ci laaye ja <laughs> ma muhammadun illa rasulun xarxalat min xabli <laughs> rusul moom yitteem mooy ami woon yenant am yënant <laughs> moo doon yitte soxna jaara <laughs> la ilaha illallah kuy dem sa néegu borom kër di am yitte am yënant kooku sëñ bi boo amee xut bu jamono laa xar wa ndax sa yitte dépassé woon na moom yitte soxna jaara mm, weesu won na am sëriñ Tuubaa moom am yënant bu yàlla yoon yónni moom kooku la nekk moo nekkoon yitteem mm-hmm. moo bi kaamil bi ne loolu nag jeex na mm-hmm. waaye gis nga ba ba mu defee yitte rek la ko yàlla fayee koo xam ne mhm. fu yenent seqi tànkam teg mu seqi tànk topp ci ginnaawam ne moom mooy mbindaanu yenent bi sa alayhi wasallam mhm. ci Sëriñ Tuubaa euh, lan nga nuy ñëwaatal Seex bu ñu ñëwaat ak Seex euh, euh, Tàkko xam naa li ñu desee ci fukki minute ak juróom lay toll mhm. man sannani xayra xadimil Mustafa فإنني أخدمه بمصطفى من سنني خير خديم المصطفى فإنني أخدمه بمصطفى axdimuhu ila duxulil janna daaril qaraari wal muna man sanna annahu yakunu abada yurdihi billasi ka xidmati bada fa xarrahu dolaalu wal idlaalu yanxaadu lii min hubbihi lhalaalu madaxtu xablu ladal mbarwali madhan wana an mislihi kullu wali madaxtu xablu la daali mber wali madhan wana an mislihi kullu wali madahtuhu madhan lada ma yomba maha uyubi wa kafa zanba madahtuhu عند أناس قلوى مدحا كفاني العدا والبلوى مني إليه خدمة قد لا زمان روضته إلى الخيام عزمان ردياني سبته جيلاني عليه رضوان الذي أعلاني ردياني سبته جيلاني عليه رضوان الذي أعلاني ردي عني سبته أبو الحسن عليه رضوان يخلد الحسن ردي عني سبته تياني عليه رضوان مبيد الجاني رضي عني خلفاء العرباء خسور رضا المخربين المطبعا من لم يكن أن يرضى فالكريم رضي عني رضا ليس يريم يسال الإله المصطفى خير الجزاء كما تقبل ووعدنا عن جزاء صلاة من كرمه يا على الذي دون المرى الخاني صلاة من كرمه يا الخاني على الذي دون المراء الخاني آمين يا رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله اسكي اسكي جري جفتي شيخ صهيب جري جفتي جري جفتي خم غا بوني بوكون بن دايره ني واجال ماغال كي شيخ تاكو دم جند ناك ne moo ko jox daayira bi jënd gëlëm ne moo ko jox daayira bi xotti ay baylaat yu baree bari nekkat kat gaa yi durus ak ñëpp moo leen di sol euh, waa daayira bi danañ kontaan ci moom wala damay laaj ndax danañ bég ci moom waaw ah, bu baax sax kay ci ngay comprendre ndax Serigne Touba ne saxaaba yeeg wali yëpp bég nañ ci moom ndax li mu defal yàlla tax <laughs> defal ko yeneen bi ndeysaan wallaay wallaay ku ñu présenté ku mel nii ni ko kat kii liggéey na lii alquran mhm. liggéey na lii diine ji mhm. ñooñu mu tudd ñooñ ñëpp ak mu tuddul danañ bég ci moom gërëm ko ndeysaan loolu mooy misaal mooy misaal mu jege ñu ma lay jox ci ñu bokk menn mbir mu nu yëngatu mhm. ndax nit biir biir wilaaya ki ñaan amu fa ñun ñi yeggagul ci yàlla rek ñooy am ay kiñaan ak parparloog yooyu mhm. ñoom ñi yegg ci yàlla xusuus nafsi yooyu yëpp mhm. day denc ci ñoom effectivement duñ ko am mhm. moo tax ñoom li ñuy wax dafay naturel euh, saxaaba sàngam gërëm na ma Seex Abdul Xaadir Jeylaan gërëm na ma Sëriñ Tuubaa gërëm na ma diw euh, Seex Tijaan gërëm na ma diw gërëm na ma diw gërëm na ma ngërmande yooyu ñu leen gërëm ñooñu gërëm ko dañoo gis ki mu doon ak li mu def ñu ne ah comme daayira bi ñëpp ñi ñu waroon def kii daal defal na leen lu toll nii. Mhm. ñu ngi lay jaajafal ñu ngi lay gërëm. Mhm. ci benn misaal. moo tax il faut mu wax ko pour nit ñi xam ne kat moom ñii de gërëm nañ ko ku ko gërëmul nag da bokkul ci ñooñu rek. dëgg la waaye ku bokk ci daayira bi. <laughs> moom da ko gërëm. macha allah <laughs> euh, Cheikh Tako xam naa nag li des ci waxtu bi bariwul ci fukki mi minute lay toll ci tënk. noonu ñëwalee ci ci màggal gi. jërëjëf Oustaz Mokhtar. Mm. di jaajëfal Seydina Omar bu baax. ci xam-xam bu sell bi mm, jërëjëf. ak eh, wax dëgg yàlla wax am na solo daal. lépp ay jàngal la. ñaan mm, sama borom ko wér. amiin borom xam la. ku amuk taalibe. bari la lool wax dëgg yàlla. jërëjëf borom sàmm. amiin sëñ Chouaïbou njàng mi am na solo. Mm-hmm. maxaar yol xool bi comme ni ko Seydina Omar waxee sànq. Mm-hmm. macha allah moom it allah yal yàlla barkeel la. amiin suñ Tuubaa dafa waxoon mel na mag ne ko mokkal nga jaalibatul maraaxi bi. mu ne ko mbàkke de wattu naa ko. mu ne ko jàngal ma ko koy jàng ba ëgsi kun lii bi jaahi rasulullahi maalikana nga boo fa xabaru kaana lay taxawe jàngkat bi ne kun lii bi jaahi rasulillahi maalikuna mm. sëñ Tuubaa ne ko ka mm. nga xam ne kaj <laughs> eh, sëñ eh, Alaaji Mbàkke di nettali da ngay kii da ciy insisté <laughs> kon bëgg noonu sax ku yàq xas léegi yu ne mel mm. sëñ Maxtaar eh, ginnaaw li Seydina Omar leeral ak la ma leeraloon ci njaal benn muy xam nañ sëñ tuba mission bi ko indi ci àdduna muy kootu fi yenen bi sallallahu alayhi wasallam ci liggéeyal ko ci diine mhm. looloo sabab màggal gi ndax ci la génn nag war a dem ci yoonu géej gi ngir liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wasallam day mel ni boobu dañ koo laaj ne ko mbàkke lu la tax a jóg ba ngay soobu yoonu géej gi mu ne ñett tax mhm. bi ci topp mooy yàlla nam ma ekkati sama daraja mhm. beneen ba mooy yàlla nam ma ma nekk xaadima rasul beneen ba mooy ràmm sama ñooñ mooy genre rujuwan ila xaw mi saadatana wal tak fi naa yow ma jamil xalqi nii raana kon mission boobu réussir na ko bi mu demee ba ñëw ci la wax ne nag sukru ilahi xaana fi turaabi banda jamili sabrin yi mooy jot na tey nag ma sant yàlla ginnaaw dellusi naa ci réew mi ci Sénégal ma sant ko ndax li tax ma koy sant mooy dan maa yóbbu ma tumranke ci ay at yu baree bari ma tumranke kon bu nu ma dellusi bu te ban ma yóbbu itam saalitu ma mooy jamili sabrin jamilu sabri googu moo dal Sëñ Tuubaa moo tax mu ne banda jamilu sabri fextara bi dañ yóbbu waaye muñ gu rafet laa fa muñ mm. maanaam mën a na di muñ boole koo ki jàmbat boole koo ki jabatu wala sax mu am lu mu tuuti tuuti nux nu koy xool waaye mm. loolu dalu ko kon sabran jamilan googu mm. mbàkke yaa wakiilu googu ko wokkat boo xoon moom la ñëwaat def lextibaas ci ci ci ci euh, waxam jooju ci abiyaat ba bayit boobu sëñ Maxtaar Sëñ Tuubaa réussir mission bi mission bi kon génn na bisub samedi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ngir liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa mu dem liggéey fa liggéey dañ koy tënk ngir waxtu wi Seydina Omar ñëw eggale bi mu dellusee mission bi daf ko daf ko réussir te ma ne réussir na ko mën naa ci joxe ay yu bëree bëri góor yàlla yi fi fekkoon ak yi mu fekkoon gànnaar ñu ci bëree bëri dañoo seede ne sëñ bi réussir na mission ndax seede bu ci nekk rek day dëppoo ak dundu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam saalix attandar yi ba mu koy woy def na ko لئن فخت كل الأولياء متأقرا fa xayrul baraaya fil xuruunil awaaxiri yow day boo jiitoo mboolem wàlliw yi nga xam ne ñoo fi mujj boo nekkee ci kaw du jaaxal kenn ngir rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam mooy sab soppe mooy sab xarit te mooy moom mooy ki mujj ci yenent yi tiyaanul baabal alawi seedeel na ko ko wax ne Sëñ Tuubaa ku réussir mission la ne xaadal xadiimu minal kamaali ajaiba ومقامه في العيون التحار لم تسمع الاسماء حتى بمثله وشبهه لم تبصر الابصار نيا سيني توبا دا لاقنا سي مقام مو خامن ني كين خامول نمو تول نده مقام مي كيمتان لا واي دا نا دال نوب مستا ديغ كو مل سيني توبا لام مستا تود كو مل واي بتيت مستا تيغي كو مل سيني توبا لولو باجي ني مبوكلان ريمي دي اي وليو يو مك nungulal na noonu cër bu Sëñ Tuubaa nangu ne mission bi mu demoon doxi ko réussir na ko mooy li nga doon wax léegi ne ñoom wàllu wi xolub ki ñaan nekkul ci ñoom sañuñu ko mm-hmm. lu mu tuuti tuuti lu toll ni euh, tarfatalaay ni ñi nekk seen seen xol mm-hmm. Cheikh Saadu Abi wax ko ko xalafa mm-hmm. zamanu la yatiyanna bi mislihi xani tat yaminuka yaa zamanu fa kafiri yow jamono boo nee nu di nga indiwaat ku mel ni Sëñ Tuubaa day dama naa la jamono gàcc nga di la wax ne daal ku mel ni Sëñ Tuubaa mënta ñëwaat te loolu ba ci naari gànnaar dañ ko koo seddal di wax ne réussir na mission am waaye mission bi mooy li yenent bi sallallahu alayhi wasallam fu mu tànkam foofu la Cheikh Amadou Bamba tegan tànkam ca tab ga hmm. saqi yun bi laa man ni suñ Tuubaa moo gën a tabe ñëpp suñ maxtaar hmm. woo na sëñ Mahmadan Touré bis ne ko Mahmadan demal xoolal mu diw ba xam dund ban ko joxan jeex na am déet hmm. sëñ ma Mahmadan jóg mel ni kuy daw rek comme mag ñi di njukk suñ Tuubaa ne ko Mahmadan kaay mu del si toog suñ Tuubaa ne ko boo demee bu ko ko waxee nii ma la ko waxee defali pexe ba xam ba xam dund ba jeex na nga ñëw wax ma ko sëñ Mahmadan ne damaa egg rek ñu jël saako bi lem ko nee na ma ñëw Mbàkke man de fekk naa saako ba dañ koo lem mu ne ko waaw noonu baax na hmm. soo ko ko waxan du la ne jeex na mukk daal ko jëlal saako bay dem yut ko maanaam ci loolu la nekkoon dundam gépp da koo jeexal ci jàng hmm. sëñ Abdourahmane Cissé eh, dafa da da daa nekk di ñukk rek far génn daje Sëñ Tuubaa hmm. Sëñ Tuubaa ne ko Abdourahmane ah looy daw ana looy waaxu sax la ko ana mu ne ko bëgg a fekkee waxtaan wi mhm. sëñ Tuubaa ne ko tuub ko mhm. man waxtaanu ma damay jàngale mhm. kon léppam da koo roy ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar fan bi xar moom borom Tuubaa Abdoulaye Salim ba mu koy wax daneen koon fa law la cheikh lam yanas adimun wala mala al mazawida wala al mazada ne ko yow day bu doon te ne yow suñ Tuubaa aji ñàkk ji du duy ay gafakaam duy ay gambam duy ay poosam ngir ku ñëw ci yow nga defal ko teraanga ne ko nag yow ra ad dunya bi ayni zuhdi minu fama saanal jiyaada walal jilaada hmm. ne ko bët bi ngay xool adduna daa bukkute bii ko nit ñiy xool <coughs> ndax yow dangay xool adduna ngir loo fi roote yóbbu ko yow mal xayam moo tax nga fase àdduna hmm. dencoo fi naaru góor dencoo fi wajan hmm. ne ko walam ya walam yarkan ilaa dangatin wax xafdin walam yax ba tarifan aw tilaada ne ko moom suñ Tuubaa day dencut sax waxuma la lu lu màgget waaye dencut sax lu yees. Mm-hmm. ndax mu di mbubb muy lu man di doon bu bu ko fu mu ko yore rek. bu doomu aadama ñëwee mu jël jox ko Mohamad bam di lay fafaal moo ko gàttale ko tafarraxatil amwaalu min ka sazar madar mm. ba naanu ka laa tubxi mm. na sax ba ci biir woow yi sëñ Maxtaar mu ne ko isa raaxat li raaxatil gadaaya ne ko addiye mm. nag fu mu ba dugg ci sa loxo Cheikh Khadim mooy waaye dina ndax bu ñëwee rek jàllale nga ko <laughs> dem na sax ba ne ko yow suñ tubaa ci yow laa gise ko xam ne asaka waru ko sëñ Maxtaar mm-hmm. sëñ Matar si Abdoulaye Sall ne sëñ Touba mooy boo bëggee ko azaka warut hmm. azaka warut hmm. mooy sëñ hmm. koo xam ne lu ñëw nga fab joxe mënoo ko faatiyee ba muy mat at ba azaka li ca war <laughs> te na ko ne nga doon ñam naa la ñam goo xam ne bu ma ñamatee lem sax du saf dara ngir na yaa dàq lem si ndeysaan macha allah macha allah macha allah ndax naa karimun nga du du du soreek nat bun karimun jomb wallaay ñoo wax yeneen nat bun karimun salilun min karimin salilin min karimin ndeysaan xiyaarun saadatal mu'assas ndeysaan béy ba moom damay daaneel ndeysaan nat bun karimun salilun min karimin salilin min kiraamin xiyaarin saadatil usuri ndeysaan ndeysaan ndeysaan dégg ndeysaan mu mel ni doyaluñu waaye waxtu ba nee na lan mooy sa message booy tàggatoo pour wax ko ñi màggale lu aju ci màggal gi ci benn minute incha allah waa suñ maxtaar mm-hmm. kon noo ngi tubaat bu baax a baax ngir tënkaat rek mm-hmm. damay faral di wax mbokki taal bi ne leen sëñ Tuubaa mos woote ci dara musta woote ci dara musta woote dara. Hmm. ku nekk xam nga ne le 10 août 1895. bi muy départ fii Mbacke Bari ci la gënoon a metti hmm. maam Cheikh Ibrahima Fall jàmbaram jooju nga xam ne keroog ba mu ñëwee taxaw bu leen ko reyanteel ak soldaar yi mu reyanteeg ñoom. Hmm. waaye dana ko irjion wala si moo taatallaahi del leen ginnaaw te ngeen taxoo topp yàlla. ana lam ashab ilaa li xidmatin xumtu biha وصلاحها في هذا السفر فقط وسأرجع إليكم إن شاء الله. دونك رفع الدين غيناو تيغن جامو يالا ماغي توكي توكي بو خامي دارا مونتا ييبن تي نيب سيوما ناتو بي بيم نيي 285 ولا 6 ناتو ناتو بو جي نيك ناتو يوننت لا مانا جيلو غرو سيغن توبا دانا يالا تيك ما ليب بامبانا ماي داما دالو بالاسلامي سيف لين ما جور لين ما دانا كو جام تا ولا ني ولا تكلني لاحد با ليغي تيون سيغن بي نيب توك لين dama maa yomb am fa juróom-ñetti at yu manqué ñeenti weer ne bis bañ ma fa wàccee dama mel ni néew boo xam ne ay mbokkam dañ ko dugal ci bàmmeel dem bàyyi ko fa gisuma fa ku bëgg yàlla ma fa kuy wut yàlla ma fa ku jaamu yàlla def fa juróom-ñetti at yu manqué ñeenti weer ñib siwaat fii ci réew mi noppalu ñu yóbbu gànnaar mu ñëwaat fii 7 1907 ñu jël yóbbu ci yéen jolof ba 1912 ñu yóbbu njaareem kon sëriñ bi loxo dundam gépp ci ay loxo la ko nekk kon màggal gii rek la ñu woo li ma la wax ne la mosta woote dara mm-hmm. màggal gi rek la ñu woo ne damaa bëgg ngeen santale ma yàlla mm-hmm. te sëñ Maxtaar mm-hmm. sëñ Tuubaa ne ne lépp lu ma doon bëgg sama diggante ak sama borom wala ma koy mébét sama diggante ak borom maa ngi ko amee ci tukkeeb géej gi sababu kullu xayrin kuntu uriduhu wépp yi wu ma doon bëgg sama diggante ak borom sëriñ bi ne ne maa ngi ko amee ci tukkeeb géej ne ne maa yomba xayra xuruuji ruux yi lu dul sama ruug yi dañ sama yaram wi daj naa ko fa Serigne Bassirou dama ci insisté moom dafa neex lool. dafa de ci Minanul Baaxil Xadim. Sëñ Tàkko wax na ko Sëñ Tuubaa daawut waxtaan day jàngale. bu faree mosaan toog da leen defal tombam yooyu bu leen tombal di leen jàngal waaye képp géej gi si Abdoulaye dafa xam ne nañ koy waxtaane day yokk taalibe Pastef te Sëñ Tuubaa tamit aussi da ko daan waxtaaneel boppam. Sëriñ Bassirou mu ne ñun ñëpp dañoo toog Sëñ Tuubaa di wax ci tukkib géej gi di ko di ko di ko fàttali mag ñi muy wax ci tukki bi coono yam fa jaar métidia tartar ya ba ci yàgg kenn ci mag ñi waroon sëriñ bi mënatu ko muñ mu yooxu fata awaxa ahadana wa tawajjaa wa xaala lillahi ma ashadda hadi balaa daal di yooxu ne ko mbàkke lii ñu la teg mosuñu koo teg góor sëriñ bi su ne fata bashama sayxuna radiallahu anhu سيدنا توبا دال دي مون جيل كالا داف كو سي گيمنگ نكو شديد متنا لول ولكن ما عطى الله من ان يكون لم يقع لان المكانه والقسوه التي مكنت منها ما كان ليكون الا بسبب يواسي عصمة والامر لله كذلك كون جير جير وقت اسكي اسكي مون دال مون دال سو مون داماي اريرات وقت وي رك با زيرو دال سيني يم ني ني تامبالي وات ندسان واي دال ا گيج لا نين كو واخي munul doy hmm. munul mat munuñoo wax lépp moom géej la mu hmm. mel na rek euh, nga génnoon muy taw nga bëgg a wàññi toq ndox yi wadd hmm. sëriñ bi noonu la mel ak liggéeyam loolu nga wax noonu ci nañuy waxtaane yoonu géej gi euh, ne kilifa gaa ko santaane ndax dana dolli. Mhm. yokk taalibe yi jom. Mhm. c'est important màggal gi it yooyu moo war a nekk message yi. Mhm. nga xam ne yiñ ciy jëlee la. waa bisu sant yàlla la caameen yi moom buñ demee bernde yi dañ dañuy gën a xool ci côté sant yàlla bi am na ci solo ndax ci la bokk ci sant yàlla lay delluwaat. waaye nag li waral li waral yooyu di waral kii sant lu yàlla di sant lu yàlla. loolu tamit mooy aspect spirituel boobu. loolu lu ci am solo la. am loo xam ne nii ci jëmm ji lay dellu waaye am loo xam ne ci ruux gi lay dellu mhm. te loolu noonu yëpp dañ koy jëlee ci yoonu géej-géeg lim ci dund ak ba muy dellu seeg yooyu yu baree baree bare la yoo xam ne fii jamono toll soxla nañ ko ci jafe-jafe yu bari yi ci crise yi tey bari na ku nekk ca réewu tugal ya benn crise yu Covid rek tax na mu ñàkk ba kanam mhm. ci benn crise boo xam ne quelque mois rek mhm. mu tëju mënu ko supporter xaru koo xam ne yow yaa ngi tëju di lekk di naan sa compte am xaalis gouvernement bi sax am lu mu lay jox ci toog gi nga toog nga ne mënoo supporter loolu xaru bu ñu la yóbboon maa yombe nga xam wallaay ndeysaan yooyu yëpp dafa am ñu ci war a jàngee nga xam ne nii nattu mhm. nit ki day tàggat boppam dañu mhm. koy tàggat wala ñu mu tàggat boppam ci mën na supporter nattu waaw ba lu mu diis diis nga mel ne montagne du la yëngal sëriñ bi mhm. nag loolu dañ koy jëlee ci dundam mooy tàqalikook sa njaboot juróom-ñaari at mhm. xoolal lu métti loolu tàqale la ak sa njaboot sa réew fi nga miin suuf si nga gane àdduna say soxna say doom say taalibe ñëpp nga bàyyi leen dem te yow loolu diisul ci yow loolu tax bi ñu ñëwee ñi pareeguloon seen tarbiya di wootewu pour fayu mu leen déedéet man jéggal naa ñëpp moom gisul loolu liñ ko teg moom moom bénéfice sax la jëlee la gisee ci dem gi yooyu nag waruñuy waxtaan naan iskay rek di fita soo ko daanu mais dafa am lu ñu ci war a jëlee nag lu ñu yóbbaloo loo xam ne du murit bee koy jël bàyyi tijaan bi du tijaan bee koy jël bàyyi xaadir bi du laayeen beeg ibaadu bi mais ku ci nekk yaa koy jël ci niveau bi nga xam ne nii moom la kooku tolloon mu jëriñ la ci sa dund ngir yow tamit nga mën a avancer seet nooy def ba yegg foofu ndax ñoom loolu rek lañ leen di ñëwee dëgg-dëgg loolu nga leen di ñëwee mooy ni ñu ni ñu fi ñu jaar ba am yàlla ko defee nag ku nekk jéem a def yitte rek mhm. jéem fa jaar ba am yàlla bi ñu amee yàlla nag la seen may yi dul dakkati may yoo xam ne nangu rek noppalu waaye wax du ko dindi pexe du ko dindi iñaane leen ko du ko dindi ndax yàlla def na ko ba noppi mm-hmm. tabaarakallah su ko defee kon Seex Tàkko ñi nga am mbégte lool ci bokkaat ak yow jataay bi eh, waaye tamit eh, tabaarakallahu Seydina Omar Diouf ñi nga am mbégte lool yow it di bokk yow jataay bi su ko defee dañuy bàyyi rek Seex Suwaay bu mooy yëkkati jataay bi mm-hmm. mu yëkkatee xasida yi mm-hmm. ànd ak waa Rési incha allahu taala di ñaanal ñëpp màggalu jàmm di ndokkelaat sëriñ di ndokkelaat sëriñ Muntaxa mu baax ni mm-hmm. di ñaan yàlla mu yàggal ko muy mm, sax di doon mbegum senegal mm-hmm. ak mbegum àdduna bi yëpp incha allahu taala Cheikh Souaib hamidtu may yaasimuni min addarar mm-hmm. min kulli ma saytaanin wa jinnin wa basar همدت من يعصمني من الضرر من كل شيطان وجن وبصر سبحانه ربا سن أهتمي بحفظه من البلاء والنقم به أعوص من هواه واللعين ومن جميع الموصيات كل حين نويت أن أدعوه مستصفعا بجاه به سفيع السفعاء أحمد سيد الورى مصليا عليه توسل لربيا أسأل ربي بجاهه النجاة من الرزايا وتناصع البخاء لك الورى يا رب هاب لي عصما منهم ومن كل بلاء والنقمة ما شاء الله ما شاء الله جرجف جزاكم الله خيرا ما شاء الله اسكي جرجف